leen nii président Bassirou Diomaye Faye def na war naa tiital képp kuy Sénégal et war nañu ñaawlu bu baax et li nga xamante nii moom lay waajal naan waxtaan na ak premier ministre te ku ne xam pas membre du conseil supérieur de la magistrature

mooy justice bi nga xam ne c'est rendu au nom du peuple sénégal. jàpp naa ne loolu ku dul Sénégal war nga ko ñaaw parce que du loo xamante ni war nañ ko en tant que démocrate. maintenant sur la question du bon fonctionnement des institutions sans le porte-parole wax c'est inadmissible te loolu kenn mënu ko un président de la république bi nga xam garant bon fonctionnement des institutions Madame le président moom moo war a taxee institution yi nga xamante ni ñoo le législatif le judiciaire ñu mën donc, dox doxit boo xamante ni ni dafay am harmonie Madame, du am benn sooxe waaye le vice président de la république mu toog ci kanamu sénégalais di encourager kii nga xamante ni mooy premier ministre am ci wax ju ñaaw ju mu yëkkati te yéen ñépp ngeen dégg teg ko ci kaw assemblée nationale ndax ñun ñépp ñoo dégg président Bassirou Diomaye Faye di wax ne jury populaire boobu nga xam ne ci la naroon a dem son premier ministre suñu fa defee sélection mën nañu am 165 yoo xamante ni sax ñooy gën a xarañ loolu c'est manquer de respect au Sénégal c'est manquer de respect aux institutions de la République et je pense que loolu lu ñuy ñaawlu la moom Je Diomaye le président toujours ci assemblée nationale dégg ngeen ko mu toog daal di ngand ngandul ne man kat journaliste bi comme dañuy préparer seen question mu wax ko ne ko moom ci assemblée nationale te ku ne xam na assemblée nationale bi yow kenn dégg mo ne moom jël décision pour li jëndi problème bi loolu dëppoowul ak li am président Bassirou Diomaye fay assemblée nationale bi coow li commencé ak son premier ministre waxu ci bindu ci ci jëfu ci parce que mom mo wax ne moi, ko à l'initiative pour régler problème Régler réglé dara et je le dis ici bureau assemblée nationale en toute souveraineté te li may wax ni ay député yoo xamante ne nii ci seen groupe lañ bokk ña nga réunion ba ay en premier muy le président du groupe ak ñeneen ont jël la décision wax président de l'assemblée nationale na nga jël contact parce que vous xam nous, ñun dañu xam lan république nous dañu le Sénégal nous duñu wax ci mi comme mon premier ministre mon ami Nous koy defee dañu réunion bureau wax président de l'Assemblée nationale bureau bi jox ko mandat ko na jël contact avec le président de la République ce que le président de l'Assemblée nationale a fait qui a été à l'initiative quoi bi mu ko woowee wax ko a gis parce que mandat bureau assemblée l'Assemblée répondre ko ci suba ba répondre ko ci ginnaaw suba après la ko woon ñu waxtaan ngeen dégg président mu ne vendredi président as euh, président Diomaye réunion lañ président de groupe yi ba am nañ accord total loolu dëgg ndax man maay président groupe parlementaire majoritaire à l'Assemblée réunion ba ñu waroon a am xam naa nag comme yëgoon na ne dañuy réunion comme moom xam naa ne dañu ko rendre compte lu bari parce que moom mooy njiit bi waxuñu ko di am dañu ko waxoon xam naa ne ko réunion am na vendredi mais après comme moom du njiit bi waxuñu ko di am vendredi man maa jël la responsabilité comme dama tuuti woon woo deux présidents de groupe ne ko réunion bi dañ koy dàq donc réunion bi muy wax ba fi may wax yow amul muy benn beneen bi mooy. il a dit que oui, a total. J'ai même entendu mon collègue Aïb Dafé le dire. Accord total, amour. Parce que nous avons dit, gisez nous, nous avons accord total, te gisez nous avons gisez, man ma ko convoqué. Suba la wara don, talata du suba la talata. À 10 heures, tam xarit bi sax xamuñu ndax dina am déet. Donc pour dire simplement que accord total bi ñuy wax dara amu ci.

a changé wuñu dara donc juste pour vous dire que initiative yi nga xamante ni nii moom am au niveau de l'Assemblée nationale tàmbaliwul tey beneen bi c'est aussi grave que le président de la République toog ci kanamu sénégalais yi naan règlement intérieur bu ñu c'est très grave c'est très très très grave pourquoi je le dis tey jii nous admettons ñun nangu nañ ne assemblée nationale am na loo xam ne war na ko mottali ci règlement intérieur waaye taxul mu bañ a am règlement intérieur parce que kon député yi nga xam ne ñooy Pastef yéen yéen a déglu ay dafe bi mu demee te rajo Babacar Fall ne ko yow barki démb lañ la nommé président du groupe ci règlement intérieur mu ne euh, euh, boobu baax na leneen bi ñu xam nga juste pour dire qu'il y a bel et bien un règlement intérieur à l'Assemblée nationale Bon, xam intégré wuñu après poste premier ministre bi ñëw li nga concerné les articles du premier ministre loolu moo am et loolu dañ ko rencontré taxawul ñu un règlement intérieur mais loolu tamit terewul moo wax leen ko aussi premier ministre article 55, mon mot moom ne le premier ministre

xam nga dégg nañ président Bassirou Diomaye li muy wax wax dëgg yàlla euh, ci imagination rek la existe ndax mi ngi wax ay waxu spoliation foncière amul tey amul démb xanaa ñoom ñu amal ko suba te gis nga examen décret yi dinañ ko jox léegi ngeen gis ko boo xam ne deux mille vingt deux décret 2022 14 41 du 25 juillet 2022 xam et celui de 2023 2023 266 du 3 février 2023 yi nga a ne léegi pour ngeen xool ne décret déclassification yi ak la nga xamante ni nii lañ ci pour ay édifice public te ëpp na 70 000 fois ci li nga parcelles yi nga sénégalais gendarmerie cimetière musulman cimetière catholique stade groupe gare roteur am gare ko sénégalais soxla mais est-ce que mos ngeen koo dégg dafa dans la conscience des sénégalais dañoo jël mbuurkaat rek séddale ko ñun ñii nga xam ne ñoo dëkk Thiès nit ñi nañ leen di wax li ngeen xam ne mooy dëgg te moo am moom suy wax waxu spoliation foncière mosu koo dégg mu wax ci li nga xamante ne nii ay terrain yi ñuy attribué la te ku ne xam na ne fépp fu ñuy seddalee ay terrain ñiy njëkk am mooy syndicat yéen gisoon ngeen sax bi nga xamante ni jaayoon na ko ministre des finances terrain boobu pourquoi moom waxuñ ak yeneen ak ministre des finances jomaay bi mu jaayoon ministre des finances gis ngeen ko te booba mooy fi nga xamante ni foofu la ñuy wax ne arrêté nañ ko mooy port aéroport loolu yàggul bokkul ak yeneen yi nga xamante ni loolu lépp nit ñi ñi ngi koy gis di ko xam donc je pense que nit ñi war nañ daal li ci des daal mooy euh, mën ngeen a nangu ne

li nga war mooy nga am responsabilité ak mat ak dal te bañ lu génn rek nga bëgg wut koo xamante nii moom nga koy boobu li nga xamante nii nag mooy mujj mooy dañuy engagé di woo képp koo xam ne militant nga ak sympathisant bu alliance pour la république parce que pour que ñu gën a booloo gën a nekk benn et se pour les échéances foutues maanaam élection yi di ñëw parce que ce qui mooy élection dina ñëw te jàpp naa ne jamono bii lañu war a gën a toog waxtaan booloo nekk benn bokk ndey ak bàyyi pour que élection yi di ñëw ñu mën ko gagné maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam